je pense qu'il y a lieu de reconsidérer ces foyers il y matière à vendre e yaakaar naa ne loolu mënul lu dul yokkunu ndax am na habitude di wax éducation nationale nañu jël suñu grande figure yi dugal leen ci criculat yi bu loolu mooy defar jikko yi loolu mooy ñu inspiré loo ci valeur yi loolu mooy tax ñun ñu xam ñooy kan parce que gis nga bis bu ñu xamul maam mag ñi ñooy kan bis bu ñu amul référence ci mag ñi du ñu xam fu ñuy teg suñu tànk te loolu day gën a wàcc rek jikko yi nga xamee ni ñoom président amoon nañ ko di ko sàmm ba tax bu ñu dajee mu mën a ñu mën a waxante lu baax jikko yooyu ñun ñi gën a ndaw day génn ci ñun ñi gën ñu ñu gën a ndaw day gën a génn ci ñun te loolu li koy faj mooy ñu valoriser li ñu am suñ ko valoriser ba pare nag dama lay ñaan nga jaay jaay ko am nga loo jaay parce que boo demee ci biti nit ñi ci biti sax ñoo gën a xam suñu suñu kilifa yi màggalu Tuubaa suñu toogee une semaine presse étrangère bi di ko waxtaane di wax nu mu demee di wax fu mu jóge yow mi yore ministère di tourisme yaakaar naa ni mën nga koo jaay bu baax a baax a baax boo demee Touba li nga gis ñuy ñuy ñuy jébbalu di leen gis ñuy xaru nga dem Medina Baye gis liy jébbalu kenn xamul nu mu toll gis considération bi nga xam ne jox nañ ko Cheikh Omar ba bërki démb français yi ci seen bopp ñoom ñoo indi sabre boo gisee gants yi ñu yore di ko téye rek nga xam ne ñun lu ñu yor lu ñu yor mën nañ ko yóbbu fu nekk lu ñu yor mën nañ ko présenter fu nekk te man damay am métit su fekkee dañu yaakaar ni tourisme rek mooy plage yu baax yi mooy soleil yi te nit yi ñëw amuñ ci ñun benn considération du ñu sol lu ñu war a sol duñ def lu ñu war a def nga xam ne da ngay tiit sax pour ragal sa njaboot gis leen parce que reflété wu benn image boo xam ne sunu image la loolu nag ma doon lu ko dénku pour wax la ne la kër goo dem ay scientifique nga fa loolu la yàlla dogal cest à que léegi kër gi yépp ak sëtu ñu baax ni sax dañu am ay comité scientifique yoo xam ne ay universitaire a ko am di def ay thèse ci këru diine yi di wax kër si su mag ñi di wax seen jaar-jaar muy inspiré nit ñi nga xam ne léegi kër goo dem am na bibliothèque yoo xam ni publication yi nga xam ne moo jël jëm ci kër yi moo moo ci nekk bërki démb suñu benn mbokk rek mu ngay def thèse ci Maroc mais papaam bi nga xam ne mooy imam ratib bu Dagana moo ko wëlbatik ni ko defal thèse ci sëñ Ablaye Sow te loolu dafay tax nit ñi nit ñi nit ñi gën a xam mais yow aussi nga am information yu doy pour mën a jaay li nga war a jaay je vous remercie monsieur le président